indi embouteillage bi gars yi tamit nee nañu ñi nga xam ne ñooy takk der yi di régler wàllum circulation bi ñoom tim dañuy faral di indi embouteillage loole nag mooy saafara bu jur jàngoro yéen kaay gi tamit daan nay wax ne am na ñenn ñoo xam ne nee nañu weeru décembre maanaam bu jotee activité yi nga xam ne gars yi dañu koy def ngir nag waajal fin d'année bi loole tamit bokk na ci li indi embouteillage bi ci diwaanu Ndakaaru ak ñi nga xam ne duñu mayante ka dawalin wu jaarul yoon wi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci Ndakaaru lépp bokk boole bokk na ci li indi embouteillage bi ma ngi ci yéen kaay gi di réew mi quotidien njaal bi nga xam ne moom ngeen doon dégg ca diwaanu Lonaas yéenekaay gi ne na am na lu toll ci juróom benn ñoo xam ne tegoon nañ leen loxo tey jii dinañu leen jébbalaat procureur yéenekaay gi délibération ak Walfadjri xëy ci scandale bi nga xam ne moom ngeen di dégg ca diwaanu poso liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk poso ni ki démb doon nañu janoo ak taskatu xabaar yi ndax dañoo amoon ab toogaanu ñaxtu ci direction générale bu poso ñoom nag tuumal nañu Abdoulaye lépp moom la nee nañu scandale bi nga xam ne moo am poste yi nee nañu Abdoulaye Bibi Baldé mi nga xam ne mu jiite poste lépp moom la moo ko organisé yéenekaay gi gi nee na yàlla baax waaye moom Bibi Balde gars yi dañu ko naroon a séquestré yéen kaay gi xëy dañu xibaara naan ñu ministère bi ñu dénk wàllum wér gi yaram gi jamono ji yëngu na ba maara détaal yi ndax ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci centre de traitement covid 19 ñoom jamono ji ñoo ngi sàkku seen prime de motivation ñu daal leen koy fayee ndax nee nañu loolee ak manque de respect la Abdoulaye Diouf Sarr la ñu tuumaal am na si ñenn ñoo xam ne toog nañ lu toll ci benn at boo xam ne joxuñu leen seen prime de motivation ñoom nag nee nañu ñoo ngi alerté ñoo ngi dànkaafu njiitu réew mi di président Macky Sall ngir nag mu daal di ciy wax yéen réew mi quotidien xëy wax ci Pape Diop a baax ci loo xam ak stratégie bi nga xam ne teg na ko ak nii nga xam ne moom lay politique ci suuf ba waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Ndakaaru yéen a kaay gi di évidence daal di wax ne ki fi nekkoon ay jamono maire bu Ndakaaru njiitul bokk gis-gis ni démb ma ngi woon ca diwaanu Gueule Tapée foofee nag tapis rouge la ko fa lalala yéen a kaay gi di Vox Populi xëy di ñu xibaar naan ñu liste ne moo nekk ci commune bu Mbàkke jamono ji coow daan na fay bëri ak li nga xam ne mooy parité tax na opposition ba daal di def ab recours yéen a kaay gi de la tribune xëy na ci recours yi nga xam ne préfet yi ak sous-préfet yi defoon ko ak blocage bi nga xam ne moo ci am li am ci yéen a kaay gi di réew mi mooy étudiants yi nga xam ne ñoo nekk ci université bu Bambey niki démb jàppante nañu ak takk der yi ba seen xool sedd yéen a gi nee na étudiants yi boyal nañ université ba bëri na fay étudiants yoo xam ne teg nañu leen loxo takk der yi dañoo mujjee wuti renfort lu toll si juróom-ñaari téeméer ci ay jumelain yi indi gars nañu dugg ci biir université bi yéen kaay gi de Le Quotidien nee na njàng meeg njàngale mi bu ngeen bëggee dégg dëgg njàng mee salfaañe wa ndax ñi nga xam ne ñooy waa SAEMS e ak waa CUSEMS ñoom ni ki alxamis ak ajuma danañu dem ci ab grève yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na njàng meeg njàngale mi jamono ji gàllankooru na ndax bu weesoo SAEMS e ak ñi nga xam ne ñooy waa CUSEMS université Alioune Diop ji maa ngi na koy paase yéenekaay gi di réew mi quotidien ak Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu mburu mi yokku nañu ko jóge na ci cent cinquante jamono ji ma ci cent soixante-quinze ñi nga xam ne ñooy boulanger yi ñoom nag nee nañu li nga xam ne mooy farine bi ak carburant bi ak lu jëm ci wàllum fiscalité yéenekaay gi de L'As ñu fekk fa ministre bi ñu dénk wàllum commerce di Aminata Assome Diatta nee mburu mi yokk ko munta ñàkk yéenekaay gi di Source A nee na bi moom la ñu jox askan wi ci Noël bi mi nga xam ne dañu ko yokk yéenekaay gi xibaar naan ñu huitième de finale yi Ligue des champions def nañu tirage ba Paris Saint-Germain moom ak Real Madrid la Atletico ak Manchester United yéen kaay gi ne na Inter ak Liverpool yéen kaay gi di sunu lamb ñu xëy fekk fa tafatina daat nay wax ne jamono ji pare na ci lépp ngir jàmmarloo ak ki nga xam ne mooy Boy Niang numéro 2 moom tafatina nee na amul benn mbër moo xam ne dina ko tere nelaw wala mu tere koo lekk. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen revue de